alaykoum wa rahmatulah ñu ngi sant yalla bu baax mom mi ñu may mom mi ñu may ñu organiser journée bu melni journée bo xamni ngir ñaax xale yi la rek pour ñu gëna gor gorlu gëna jang gëna gën a xel ni parents yi sonn nañ té ñoon aveniru ëlëk ñoon ñoon ñoko yor donc lycée Blaise Diagne nag ñu bëgg ko delloo famu néwon moy lan def ko lycée d'excellence redonner donc je l'ai dit tout à l'heure en français le blason du lycée Blaise Diagne lycée Blaise Diagne tey ku ñun 2012 on a vu que les résultats sont en train de grimper et il y a de très bons résultats et nous voulons continuer dans cette dynamique nous voulons accompagner les élèves nous voulons les outiller euh, outiller pour que les ak lu ci mën a am euh, ñiy jiite ci station de responsabilité nekk ay produits lycée Blaise Diagne ci lolo tax ñu ànd koog le proviseur bi nga xam am gis-gis la ko am taxawaay la rien la fi ñëw mais bi mu ñëwee damaa wax ni elle a fait bouger les lignes madame la proviseure Lotte Dieng John ñu ngi koy remercier au nom de l'amicale et au nom du comité d'excellence. Wa choix bi mooy wàllu xarale yi ci wàllu njàng bi xale yi tey war nañu utiliser xarale yi pour gagner jang parce que damay wax ni ñu ngi leen di jàngal ci classe yi mais am na liggéey boo xam ni ak euh, connaissance yo xamni vous nañ ko am ci walu xarala yu yi ndax xarala yu leen laaj ñu jox lako donc ñoon tay nañ ko utiliser mais bañ ko utiliser di utiliser de da di mais nañ ko utiliser pour ag niveau bo xamni excellence lay mais pas ay niveau moyen ce que nous cherchons fi li ñu wër ci Blaise de jël suñu njabot gi moy élève yi def leen ay élève yo xamni ëlëk ñoy mi diriger mi développer le pays ci loolu lañ violence mom li ma jox bëriwul élève bi bayam yobal ni ko demal jàngi jàngo ko war ndax àggagul fenn fi na ci jang jangale kat bi nga xamni mo engagé wu dugg ci enseignement amna droit dem defi politique su ko nexé defi politique waye lu ci góobee nako gérer ñun école bi lañu denk té ci école bi lañuy gérer mais ku génn nak wacc terrain politique pour tes intérêts pour lenen même intérêt réew mi ah hein, intérêt sa intérêt la ndax kenn gisoo ko fi politique fi te amu ci intérêt

ak ñeneen ñu kii wax le directeur régional du cadastre ak ay magistrats ak ñeneen ak ñeneen fii la ñu génne fii la ñu tax ñu bëgg loolu ñoñu la ñu doon ñi do genn doon ko wala sax ñu yor réew mi nous voulons que Blaise Diagne li ñu bëgg moy. ëlëk njiitu réew mi ñu ne Blaise Diagne la jàngee loolu moy suñu souhait premier ministre Blaise Diagne la jàngee président ou présidente assemblée nationale Blaise Diagne la jàngee procureur de la république nous avons un objectif objectif. Nous avons niveau avons un objectif. joie, parce que c'est pas tout le monde qui est donné à avoir des prix comme ça. On s'est donné des sacrifices et heureusement, gis nañ sacrifice yoy wa école bi parce que y a plus de des y a de y a des centaines d'élèves qui sont primés aujourd'hui parce que on, on a compté environ cent cent sept élèves qui vont être primés aujourd'hui euh, ñu gëna a yokk doole rek gëna a jang parce que affaire yi amul amul amul amul amul nëbb la rek ak dem ci parce que nous on se donne les moyens parce que dañuy veiller di def ay lépp on s'exerce on fait des séries entières de def exercices yu le C'est pour ça que rapport à la jeunesse B si? ah ok les jeunes d'aujourd'hui nous dañuy utiliser Tiggy parce que les technologies de l'information et de la communication peuvent causer un dommages comme la violence explicite même le terrorisme ils doivent utiliser utiliser ça pour pour leur aise. Par exemple, avec, avec, avec les nouvelles technologies, on peut, chercher des documents qu'on n'avait pas à la bibliothèque. Avec l'Internet, on a la possibilité de, de, de, de se, se, cultiver davantage. Man, je me dis que les jeunes, nous parce que dañuy top mbooloo rek après ñu ànd ak ñoom parce que xamuñu ci lu bëri la preuve ici wa Blaise Diagne grève mës na fi am élèves xamuñu lu xew sax mais ñu topp nit ñi ànd ak ñoom. je le conseille de rester à leur place parce que yenn affaire yi su amee ay violence yoo xam ne ñu dem ñibi genre su ma wàccee nga ñibi moo fi sës tey dama ñëw fii personnellement ci invitation proviseur bu lycée Blaise Diagne pour and ak mom ñu fété xalé yi élèves yi élèves yi nga xamni ni véritablement dañu am ay euh, résultats yu baax euh, ci premier semestre bi lool nak bu ma gisee man ma sawar pour def ko c'est pour woné ni école état daf ko tek fu am solo euh, ñi nga xamni ñom lañ fi former également ñom ñoy avenir Sénégal motax activité yu melni ñun dañuy sawar pour tew ci

waaye wane xale yi nii ay exemple lañu na ngeen leen suivre djema a egg fi nga xamni ñom egg nañ fi wala boog sax ngeen dépasser ko et troisième et dernière chose boy ñew nañu parce que dañu gëm ni euh, xalé dañ koy encadrer dañ koy tété dañ koy jàppale euh, encourager ko ci liggéey bi euh, ci études yi bu liggéeyee ba bu jangé ba am résultat yu bax ñu récompenser ko et enfin nak lycée Blaise Diagne Sénégal ñëpp xam nañ ko lycée bu mag la bu yàgg indi ay résultats yu baax donc jaadu na kon bu xewlee bi su melni nii ñew tew ci. waaw xalé yi xam nga violence euh, baxul fenn euh, rawatina ci école euh, d'ailleurs ak inspecteur d'académie surtout bu Dakar jëm nañ ci def ay djégo

parce que si vous sommes nos meilleurs élèves d'ailleurs si nous les c'est grâce à l'apport de nos parents. c'est le moment quand même de les remercier vivement euh, nous avons M. Ngagne euh, qui est chef de service régional du cadastre de Saint-Louis qui est ancien c'est produit de lycée donc ku mel modèle la ku melna na Cheikh Sadibou tiam bi ngeen deg tay mu nek ci États-Unis nek banquier model la ku melna ministre de la santé ñu nek ci le 8 mars mom aussi model. la ku melna na Pape Diakhité Konaté nga xamni mo yore tout ce qui est éducation à la ville de Dakar mom aussi model. la yaakaar naa ni Yoy yooyu ñu tan li tax ñu tan leen dañu nek model té nak ruslo wuñ ñu parce que luñu waron indi fi rek indi nañ ko kon ñi ci sante yalla ñoo ñu permettre tay

da ngay xëcc ni nekk ci ginnaaw maanaam ñi nga tay? ne tey jotuñu prix xamuñu ndax dañoo feebaroon xamuñu ndax ñoom condition yu ñu nekkoon mais tey dañ leen bëgg ñaax daal di leen wax ni nañu gën nañu làbbali gën a góorgóorlu ndax second semestre ñu dellusiwaat parce que loolu mo indi li. on veut créer l'émulation nous disons non à ce système de punition maintenant il faut créer de l'émulation pour que ñu xëcc xale yi ñu mën a ñëw di jàng bu baax a baax loolu moo waral bis bi tey léegi nag am na lu ngeen ma laaj sànq ci français mooy affaire xale yi discipline bi discipline bi ma ne ñun toujours dañuy liggéey ak comme zone ndax suñu drapeau national buñ koy yéeg di wàccee dafa am lu muy lu muy lu muy wax loolu muy wax nag la ñu bëgg mu dugg ci nopp xale yi du ko defee nag jikko yu baax yi comportement yu baax yi ñëw ñu bàyyi comportement yu bon yi ñun man ak sama staff muy censeur bi nga xam ni ci bunt bi lay taxaw 7 h parce que am nañu règlement intérieur bu tere xale bu sol lu bon ak xale buy def yu dul noonu léegi xale bu doodu fii ku fi dugg daal da ngay correct dañuy yéeg ci saal yi censeur surveillant professeurs yi ñun ñëpp di leen ñaax ci comportement bu ñu war a am ndax su ngeen gisee lycée Blaise Diagne dal gi mu am loolu moo ko ko may maanaam ñun dañuy waxtu duñu noppal wër na yàlla sens dafa naan proviseur dee na ñu man ko noo dañ ñu confier ay doomu jambour en plus xam-xam bi dañ ci war def éducation te éducation bobu professeur yi jàmbaare ci lool nak monsieur ñaam nek sama gannaaw yore comité l'excellence ak ñi mu ko bokkal ñëpp diggante góor ak jigéen parce que tay gis ngeen fi organisation mënuma lim ñëpp ku lim da ngay joom mais ñëpp ñëpp ñing ci japp vraiment loolu motax école bi mel ni mu mel tay waxtaan bu baax baax ci ci ci ci ci ci parrainage bi ñu def nii euh, nga nekkoon fii donc de la promotion 97 te yàlla dogal nga ñëw fi tey euh, ñu def la parrain je pense que loolu loolu loolu lu rafet la lu ñu lu ñu nangu la loolu day wane ne rek lycée Blaise Diagne ay élite lay formé lycée Blaise Diagne une fois que nga am chance dugg ci biir euh, établissement bi rek déjà tu es bon cela veut dire quoi cela veut dire que donc il te suffit juste nga am concentration nga nga bàyyi xel ci sa bopp nangu li lay professeurs yi di wax nangu li lay corps corps corps professoral di digal. yaakaar naa loolu boo ko defee rek incha allahu rabbi ah, bala nga fi génn suñu borom dina la mën a jox ay jumtuwaay yoo nga xamante ne di nga mën a jàkkaarloo ak sa àdduna te loolu yaakaar naa ne moo ñu dal moo ñu dal ñeneen ak ñeneen ci biir ci biir ci biir ci biir àdduna bi ku ci di faral di dégg mu doon man ak moom ñu bokkoon fii nekkoon fii ci lycée bi leen jaan bi donc ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ne fi lañ jaar juste pour dire que donc lycée bi lycée d'excellence la na ci ñuy gën a élèves yi bàyyi xel parents yi bàyyi xel te incha allahu rabbi li ci kanam incha allah a baax merci beaucoup